Aminata Touré démb ma nga woon ca diwaanu Bignona ak ca diwaanu Ziguinchor moom Mimi Touré tedd liste Benno Bokk Yaakaar song na Ousmane Sonko ca Casamance ba xolam sedd ndax nee na ko ñun ñëpp ay Casamance lañu ay sénégalais lañu démb ca Bignona daat nay wax bilaab njiitu mi di président Macky Sall journal bi di Les Échos ñu xëy fekk fa Amadou Ota moom nag woon na électeurs yi ngir ñu votal Benno Bokk Yaakaar ngir nag réalisation yi mi di Macky def na ko ci réew mi yéen gi di enquête ñu xëy fekk fa maire Macky Sall lu leen neex bay boo ñu wax ko lu leen neex tamit bay boo ñu def ko waaye cohabitation loolee mbir la moo xam ne mënut a ñàkk Augustin ca diwaanu Thiès mel ni kuy tontu Barthélémy Dias nee ko cohabitation loolee moom xalaatuñu ko Barthélémy Dias na ci kanam rawati bët yéen kaay gi di Sud Quotidien nee na xawma cohabitation xawma ñàkk cohabitation waaye nag yéen ñi nga xam ne yéen a fas yéene dem ci élection yi dese lu toll ci fukki fana yemale ndax ñi nga xam ne ñuy waa Benno Bokk Yaakaar ñoom 10 000 la joxe ngir nag ku leen voté la du samay kàddu kàddu yi Mamadou Lamine Diallo la ma ngi ci journal bi di réew mi quotidien moom Mamadou Lamine Diallo nee na dund gu cher gi nga xam ne ma ngi ci réew mi loolee Macky Sall ci boppam moo ko waral ndax gis-gis bi moo suriwu la te ñi nga xam na ñuy waa Benno Bokk Yaakaar scandale sur scandale la ñuy def ci réew mi te nag askanu Sénégal la waru ñoo fàtte njuuj njaajak marché yu lëndëm yi nga xam ne moo amoon ci covid bi marché yi ñu joxoon Mansour Faye ci lu jëm ci ceeb beeg diwlin gi ak suukar si ci covid bi wàllu wér-gi-yaram gi ci Sénégal lu jege téeméeri milliards yoo xam ne joxoon nañu ko Abdoulaye Diouf Sarr te ba léegi amul lenn loo xam ne lu ci leer la yéene kaay gi de l'info ñu xëy fekk fa Pape Diop moom nag nee na dafa bëgg indiwaat Sénat ci Sénégal ba pare yeesalaat assemblée nationale yéene kaay gi de la mandat aar Sénégal ñoom nag nee nañu bu ñu gañee assemblée nationale ab loi boo xam ne dafay tere lu jëm ci cumul des mandats la ñuy indi ndax nekk maire nekk député loolee tegewul fenn yéene kaay gi de Les Échos xëy di ñu xibaar Mamadou Fall directeur de l'emploi ak waa coalition sàmm sunu réew jamono ji ñoo ngi bale terrain bi ngir ne moom la ñu dëg moo tax aar dem cee nga munta dikk mbay laara yéene kaay gii di réew ko di cee ñu xëy fekk fa Jibi Diallo mi nga xam ne mooy sous-préfet bu Dakar Plateau moom nag nee na askan wi nañu ñëw ci commission yi jël seen carte électeur yi ndax carte électeur yi bëri na si ñoo xam ne ñoo ngi ci commission yi kenn jëliwu leen moom Djibi Diallo sous-préfet bu Dakar Plateau nee na ñi nga xam ne ñooy candidat yi nañu sensibiliser seen militants yi ñu ñëw récupérer seen carte électeurs yi yéen kaay gi de la témoin nee na ñi nga xam ne ñooy waa Benno Bokk Yaakaar ñoom ci réalisation yi président Macky Sall yi si la ñu kal seenu campagne yéen kaay gi de la sa nee na transhumance Mayoro Faye mi nga xam ne moo nekkoon PDS jóge na PDS léegi ma ngi ci Benno Bokk Yaakaar yéen kaay gi du Source A Barthélémy Diaz na képp koo xam ne votel nga Macky Sall yow ànd nga ci wàllum góor jigéen Barthélémy Diaz képp ko votel Benno Bokk Yaakaar yow yaa ngi promouvoir góor jigéen borom ñaari tur yi yéen kaay gi de la tur bi la ñu xëy fekk fa Thierno Bocoum nee na nag giraawaal yeeg njombe yi nga xam ne moom la waa Benno Bokk Yaakaar nekke bu wëyee loolee askan wi dinañu révolté yéen kaay gi di fa Populi ñu xëy fekk fa Ousmane Sonko coalition Yewwi Askan Wi ñoom nee nañu bu ñu amee majorité caisse noire dañ ko fii jëlee ndax Ousmane Sonko na Macky Sall yàq na réew mi te nag ñetteelu mandat bëgg def ci réew mi te loolee mën naa andi kaawu ci réew mi Ousmane Sonko ne lu jëm ci borom ñaari tur fii la ñu def ab proposition de taxawaay ba ca Macky Sall amee ñëpp gis nañ ko yéen kaay gi di Direct News xëy nag fësal ci xëtam mu njëkk ne Ousmane Sonko el phénomène noonu la ko journal bi xëy tuddee ndax nee na ku am charisme la moom Ousmane Sonko ko courage la moom Ousmane Sonko ku am engagement politique la moom Ousmane Sonko maanaam jaar-jaari Abdoulaye Wade foofee la Ousmane Sonko yi caara jamono ji ci pouvoir beeg opposition bi ma ne la vedette bi Ousmane Sonko la du samay kaddu Direct News moo ko xëy bind moo xëy bind ne Ousmane Sonko el non moo ko wax yéen kaay gii di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naa ñu liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk hôpital principal démb amal nañu toogaanu ñoxto li nga xam ne moo leen naqari mooy ñàkk a respecté accords yi nga xam ne gouvernement bu Sénégal sife woon na ko ak ñooma yéen kaay gi délibération xëy duñu xibaar naan ñu Babacar Ngom bu Sédima ginnaaw bi ñu ko tuddee ci suuful ndeng leerse am na beneen terrain kër jaw boo xam ne doon nañ ko fa tudd waaye nag tribunal bi dafa daal di sàkko terrain boobee xamante ni Sédima moo ko jëloon occupé ke ngar dajjo ko mu daal di fay jóge ba pare tribunal journal bi nag nee na nañu toj bépp miir lépp loo xamante ni Babacar Ngom bu Sedima defoon na ko ca terrain boobee ca kër Njaw ndax trois hectares la yéen kaay gi de la sa waa uni ñoom nag ñoo ngi alerté di dànka fo maanaam ndool ak xiif bi nga xamante ni jamono ji mooy yoot adduna bi yéen kaay gi di libération yéen kaay gi di sunu làmb ñu koy fekk fa Abbas Ndoya mi nga xam ne mooy président écurie Fass Ndakaro nee na gars yi ñoo fi nekk di wax rek waaye diggante Gris Bordeaux ak Tafa Gueye amul benn problème société nationale d'électricité bu Sénégal